Chers compatriotes d'ici et de la diaspora, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour m'avoir permis d'être candidat à l'élection présidentielle. Je suis présentement devant vous pour exprimer ma volonté d'être le président de la République du Sénégal, un président de consensus. Beaucoup de défis s'adressent devant notre très cher pays. Défis qui nécessitent des solutions audacieuses et innovatrices. Pour relever ces défis, je compte sur le patriotisme, l'engagement, la volonté de tout un chacun pour qu'ensemble nous puissions mettre en place un programme de développement du Sénégal axé sur 19 propositions, parmi lesquelles la rupture, la souveraineté, l'équité, la justice, la méritocratie, sans oublier de renforcer nos valeurs spirituelles morales et religieuses mbokk yi man seen doom professeur Daouda Ndiaye ma ñëw waxtaan ak yéen pour sant leen gërëm leen di ma nekkee candidat di leen wax ne dama bëgg dagaan seen kaddu seen carte pour jiite réewu Sénégal man seen doom Daouda dafa am lu ma diggante woon ak suma yaay bi nga xamee ne gédd naa àdduna yàlla yàlla xaari àjjana ak bépp ku mu fa fekk mu ne moon ngal la Daouda bis bula la yàlla mayee nga jiite réew mi bu fekkee am na fexeel ba ma jël yàlla seede rongo ñu jigéen mu jeex nga wàññi coono jigéen ñi képp ku xiif mu lekk képp ku mar mu naan ci lu nga xamee ne bu dul poosam la réew mi moo ko koy jox képp koo xame ne feebar na foo mën a nekk ci réew mi muy Sénégal bu nekk fii wala nekk diaspora foo mën a nekk boo amee ñu faj la boo amul ñu faj la ci lu dikke dara du doon benn doon ngal la waay Daouda fexeel ba nga xam ne dund gi dee wàññeeku fexeel ba nga xamee ne ceeb diwlin suukar ak lépp lu ko nuróol ku jël sa poos génn nag mën kaa jënd ci lu mu la tekkiwul dara ngal la waaye fexeel ba nga xamee ne muy courant muy ndox foo dem ci Sénégal nga fekk ko fa waaye lépp ñu teg ko ci yoon ak ci yërmande moo tax loolu pour am il faut ñu dagg buumu jaam mi loolu nag su ma mënee am loolu il faut ngeen votel ma pour ma jiite réew mi sant naa leen gërëm naa leen wasalaam